mu ne yonent bi daa waxoon saxaaba yi fekk booba dañoo lekk tàndarma ju ñor ju tooy nga xam ne wow gutoon naan ndox teg ca yonent bi ne leen la suñu boroom wax ca suuratu takaasur ne summa la tus amun na yow ma itin ani naayim bu ëllëgee kenn ku ne du la yàlla xéewaloo mën a laaj ba xam santoon nga xéewal ga cant ga ci yellam déet mu ne leen ni ngeen def lekk tàndarma ji ñor ju tooy naan ndox teg ci bokk na ci xéewal yi nga xam ne bu ëllëgee seen borom na leen ko laaj ba xam ndax santoon ngeen ko ca cant ga ci yellam déet loolu nag gis leen lool ñoom saxaaba yi ndax ndegam duñu ne ak ndawal gu duuf lañu lekk tàndarma ji rek ak na tardé mu bare foofa ñu tekki naan ndoxum kese ñu ne leen loolu xéewal la boo ne bu ëllëgee daañu leen laaj ba xam santoon ngeen ca sant ga ci yàllam déet loolu daal gis ci ñoom lool mu ne leen su ngeen dee jëfandikooti xéewal gu mel nii wala ngeen tàmbali na ngeen di wax bismillahi rahmani rahimi wa ala barakatihi su ngeen lekkee ba noppi wax ni alhamdulillahi alladi ashbaana wa arwaana wa anhama xalayna wa afdal loolu buñ ko defee rek sant bu ëllëgee dees luñ ci laajaat dara kon fexeel ba bala ngaa xéwloo genn xéwal rek muy lekk muy naan nga tudd turu yàlla boo jëfandikoo ba noppi itam sant yàlla soo ne ñaan gi baax na soo ko mënut nga wax alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla rek sant gi fii li mu tekki mooy noo ngi sant yàlla mi nga xam ne moonu reggal màndal nu defal nu xéewalam defal nu ngëneelam wa fil xadis nekk na ci addis ni amataani yaari xéewal maxboonun lu ñu nax la ki wax lu ñu xëpp waaye xëpp mooy nax fii maaj ñoom ñaar lu bari mina naas ci nit ñi asihatu mooy wéru yaram wal varaaxu ak féex ci ay soxla ne addis ba nee na woon yaay xéewal a ngi yoo xam ne nit ñu bari buñ ca tolloo duñ xam ne xéewal la ba bañ koy weesu benn ba mooy wér yaram daanaka balaa nit xam ne wér yaram xéewal la gu réeréy dem rek lay door a xam ñu wér toll woon ak amul jot te tal ko amul jot ànd ak tal xéwal na gu rëy rëy goo xam ne bu ca nit tolloo daanaka bala koo xam rek weesu ko ba ba soxla yi fees boppam amatul genn tal boobu lay xam nag ba mu tolloo ci dal akuk tal xéwal gi ko yàlla defaloon faidat ni njëriñ la waxan muusa bni yasidin xan uwaysin alqaraniyi an omar bni alxataab wa ali bni abi taalibin radiallahu anhuma qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man daxaa ku ñaane bi haadihi al asmaa ci yi lay tur waxii ñëw moo tàmbalee allahumma yow buur bi innaka naka yow xayun aji dund nga laa tamuutu doo dee wa xaalibun te aji not nga laa tuxlabu deefu la not wa basirun te aji gis nga laa tartaabu doo sikki sàkka wa samihun te aji dégg nga laata shukku doo sikki sàkka laata shukku wa qaharun te ab notaakoon nga laa tuqxaru deefu la not wa abadiyun te kojub dappet nga maanaam ku fi des ba faaw nga laatan fa du doo jeex wa qaribun te aji jege nga laata buhudu doo sori wa shaahidun te aji teew nga laa tax yibu doo fàddu wa ilahun te ab buur nga boo xam ne laa tubaab defu mën a noonoon tey yow safaanoon tey yow maanaam bëgg laa def moroom laa tubaab defu la diir mbagg wa qaahirum te aji not nga laa tablimu joo xam doo tooñ wa samadun te ku ñu jublu nga ci aajo laa tutxamu deefu la leel wa qayyoomun te yaa taxawe lépp ab taxawe kat nga boo xam ne kenn taxawewu la yow laata naa mu doo nelaw wax te jubante aji yuuru nga maanaam aji làqu nga laa turaa defu la gis wa jabbaarun te ab notaakoon nga boo xam ne laa tubaa mu defu la gotti defu la tooñ ak toloxal wa azimun te aji nga joo xam ne defu la sàkku wa alimun te aji xam nga joo xam ne laa toxla mu defu la xam wa qawiyun te aji dëgër nga laa pàbb xufu doo doye di da ca tegaat nag wa jabbaarun te fekk na weesu na wa jabbaarun xëy na kon dafa nekk wa sabbaarun te ab muñkat nga laa tuusafu deefu la mën a melal wa fiyun te aji matal walëri nga laa tuxlifu doo war laa tuxlifu doo war wa adlun te aji maanu nga laa tax yifu doo jeng wa ganiyun te aji woomal nga laa taf taqiru doo ñàkk wa kansun te am kom nga laa tan fadu doo jeex wa xakamun te aji àtte nga laa tajooru doo jeng wa maanihun te aji fekk nga aji tere nga aji fekk nga laa tuqaru déefu la mën a not wa maaroofun te ku ñu xam nga laa tunkaru déefu la fakk wa wakiilun te ku ñu wakiil ay mbir nga laa taxaafu doo ragal wa fardun te kenn nga koo xam ne laa tastashiru doo diisoo wa wahaabun te ab mayekat nga laa taruddu doo delloo kenn ci loxoy kese wa sarihun te aji gaaw nga laa tabhalu doo gëlëm wa jawaadun te ab tab nga laa tabxalu doo nay wa asiisun te aji tedd nga laa tadillu doo torox wa alimun te aji xam nga laa tajhalu doo réer weesoon na fee nag wa alimun te koo bind fii xalimun kon xayin waaye say boo def ko xalimun xaaloon ko wa xalimun te aji lewet nga laa taj xalu doo jëf-jëfi kuréer kuy xaat-xaati wa xawiyun te aji wattu nga laa taxafulu doo sàggan wa mujibun te aji wuyoo nga laa tas amu doo yokkat wa daa iman te aji sax nga laa taf naa doo jeex wa baaxin te aji des nga laa tabalaa doo ràpp wa waahidun te kenn nga koo xam ne laa tushabbahu doofu na muróoleeg keneen wa muqtadirun te aji sarkàttan nga laa tunaasamu déeful xëccoonte yow istajaaba wu allahu yàlla duha axoo ñaanam nga walaw daxa ak doonte ñaanoon na bihaa ci turyooyu xalaamaa ci am ndox jaawin mi aji daw la sakkana kon mu dal bi ismillah ci nameelu yàlla wa faidatuhu te njëriñam ak solo moo gën a bari maanaam moo ëpp min an tux saa ci bu dee ko jéem a takk ak mu ne jëlee ci ku ñu wax Muusat mu ne ku ñu wax Uways al-Qarani ci Umar ibn Xattaab ak Ali ibn Abi Taalib kon Uways al-Qarani moomu moo jëlee ci ñaari saxaaba yu màgg yi muy Umar ibn Xattaab ak Ali ibn Abi Talib ñu ne yonante bi moo waxal ne ku ñaan yàlla ci tur yii tàmbalee ci allahumma innaka xayyun laa tamootu ba ci wa muqtadirun laa tunaazaw faaw yàlla nangu la ko ñaan boo tiimoon am ndox muy daw sax waxtu yi ñaan ci yàlla taxawal ndox ma bu mu dawati sax ndox ma ne teg fi saasa du dawati ci coobare yàlla tur moom nee na li ëmb ci njariñ mëneesu ko li ma ko takk xawaasul basmalati lii mooy jagley bismillahi irrahmani irrahim wa ida tuliyat ndem jàngeef na al basmalatu bismillahi irrahmani irrahim xinda naw fa na ma tëdd ga nelaw ihda benn wa ashrina ak ñaar fukk marratan ci ay yoon amee na kon mu wóolu moom aji jàng ja tilkal laylata googee guddi mina seytaani ci seytaani arrajiimi ma di muñ jam wa mina surraaxi ak ci way sàcc ña wat tawaariqi ak way rañaan ña wa mawtil fajaati ak deewuk mbetteel wa kulli balaayin ak bépp balaa day tàmbalee wax jagle yi nga xam ne moom la bismillaahi rahmaani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 wa ida quriat ndéem jàngeef na al basmalatu bismillahi rahmani rahim mi ata marratin téeméer yoon ala maridin ci aji tawat talaatata ayaamin ñetti fan azala dindi allahu yàlla an walis ko dalikal marada joojee tawat wa ida talaaha ndéem jàng na ko xinda tulooxi shamsi fa fenku jant talaasa mi ati marratin ñetti téeméeri yoon wa sallaati mu julli ala nabi ci yonante bi sallallahu alayhi wa mi ata marratin téeméeri yoon rasaqahu kon wërsëgal ko allahu yàlla min xaysu laa yaxtasibu ci foo xam ne du ko foog wala yaxillu te du ay mooy te du dikk ci moom alxawlu at ma illaa waqad agnaahu dara nga xam ne doy lul na ko doy lul na ko allahu yàlla taala kay na min fadlihi ci ngëneelam bokk na ci njariñi bismillahi rahmaani rahim su amee ku tawat nga def bis nga jàngal ko téeméeri bismillahi rahmaani rahim ba muy ñetti fan yàlla dana dindi tawat joojee boo bëggee xam ne waxtu bi jant bi fenk da seet waxtu wa noddoon salaatu dañ ko faral bind ci tableau yi ci jàkka ji boo ci tegee waxtu fukki minit ak juróom du soreek jant bi fenk waxtoo nag nga jàng ñetti téeméeri bismillahi rahmaani rahim dali ci yonent bi téeméeri yoon mais soo ko defee yàlla jox la wërsëg foo foogutoon bala at maa jeex itam mu defal la wërsëg ci mbaax ma ngëneelam ba nga doylu wa isaa tuliyat ndéem jàngeef na albasmalatu bismillahi rahmaani rahim xinda nuzulil matari fa wàccuk taw ba ixda benn wa benn fukk wa sittiina maratan ci ay yoon bi niyatil istishfa yi ci yéene saafarawu min maradin ci tawat bi ci jot nekk na ci moom shafaahu kon saafara ko allahu yàlla taxala fi dalika al yawmi ci boobee bis bokk na ci jagley bismillahi rahmaani rahim soo yëgee ne mu ngi taw nga daal di jàng bismillahi juróom benn fukki yoon ak benn te yéena ca yàlla saafaraal la sa jàngoro kon yàlla dal lay saafaraal jàngoro joojee ca bis boobee wa qadru ya net leef na wa saxati mu wér ne ànd na mën naka koo xam ne waa zaba taqoona alal basmalati ci bismillahi rahmaani rahim masaan ci ngoon wa sabaxan ak ci suba tisa asharata fukk ak juróom-ñeent maratan ci ay yoon lam yakun du nekk lil fattaani ñeel fitnalikat ba ilay jëm ci moom sabilun wenn yoon wa asamahu te musal ko allahu yàlla minal fitnani ci xeeti fitna yi wa zalzali ak rëng-rëngi suuf wal haahaati ak xeeti gàkk yi waxawaa imil balaaya ak rëy rëyi balaa yi war a saqaxoo te wërsëgale ko alxaybata ak wegeel wa alxaate mu sànni alayhi ci moom almahabata cofeel loolu it day lu jàppandi la te bari njariñ mooy nga saxal bis bu ne suba ngoon nga wax bismillahi fukk juróom-ñeent maanaam wax ko daal ñaar fukki yoon yu manqué benn saxoo ko nag suba ngoon soo ko defee seytaan du mën a am ci yow aw yoon te yàlla da lay musul ci xeeti fitna yeeg balaa yeeg xeeti laago yéeg rëngërëm gi suuf yeeg mboolem yooyu ñu ragal may la ñu weg la sànni ci ba nga xam ko la gis dëgg la wa ida kutibat ndéem bindeef na al basmalatu bismillahi irrahmani irrahim xamsatan juróom wa talaatiina ak fanweer marratan ci ay yoon waxoon li te takkeef ko fil bayti ci néega fa innahu naka moom laa yaddaxuluhu du ko dugg cheytaanun cheytaane wala jaanun du caageenu jinne wa kasurat te bari barakaatuhu ay barkeem wa tawaffarat te lëw mooy te bare bari xayraatuhu ay yiwam mu ne ku bind bismillahi rahmaani rahim faneeri yoon ak juróom takk ko ci néegam néeg ba saytaane du ca dugg jinne du ca dugg te yàlla da cay sotti ay yiw ak ay barke yu bare bare wa iza kutibat ndéem bindeef na ko moom bismillahi rahmaani rahim fii awwali yawmin ci aji jëkki bis minal muharrami ci tamxarit fii waraqatin ci aw kayit talaasa asharata fukka ñett marratan ci ay yoon wa mi ata marratin ak téeméeri yoon wa xamalaha te ko mel ne takk ko insaanun nit maaxoo ànd ak moom lam yanalhu du ko jot suun dara lu bon wala makruhun du ca génn lu ñu sib huwa moom ci boppam wa ahlu baytihi ak ñooñ ab néegam baa nga ñooñ këram muddata xumrihi jurub dundam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 kon nee na yow ci sa bopp ak sa waa kër li xeeg yaa ngi dund dara lu bon mbaa dara lu ñu taamuwut du leen laal du la laal du laal sa waa kër loolu nag kon lu jàpp ni la wa fi kitaabi ibnil haaj man katabaha ku ko bind li atam marratin téeméeri yoon wa arbaa asharata ak fukk ak ñeent marratan ci yoon wa xamalaha mu yore ko ba mu takk ko maaxoo ànd ak moom qubiyat kon fajeef xaajatuhu soxlaam wa rusiqa te wërsëgaleef ko alxaybata ak wegeel ak tey muy ak weg fi qulubil jabaabirati ci xol waroom doole wal muluuki ak buur ya walam yadurrahu te du ko lor xalqun menn mbindeef min xalqillaahi ci mbindeef yàlla yi maadaamat li feen mi ngi sax maa xoo di ànd ak moom waxubuga te watoof ko fii ahlihi ci biir waa këram wa maalihi ak alalam wa waladihi ak doomam bi itam day bu yomb la te am njëriñ lool xaw niroog bee imnul xaaj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 qaala allahu ci sama tedd nga wa jalaal yi ak sama màgg wa jooj yi ak sama tab wa karam yi ak sama tedd nga mbaa sama tabi mbaa sama mbaax xalaftu laay waate xalaaman ci ko nga xam ne xara jàng na bismillahi rahmaani rahim muttasila mbir mi aji sës bi faatihatul kitaabi ci faatihay téere bi marratan aw yoon waaxidat di wenn la axfiran na faaw dinaa jéggal loxo ñeel ko wala balaxat ak doonte jotoon na dunoo bu ay bakkaaram xanaana samaa yi njobaxtanu asamaan wala aqbalan na gim naa ne dinaa nangu min hu ci moom alxasanaat yiw ya wala uxriqu te duma lakk lisaanahu làmmiñam binaari ci samaw sawara wa ujiiruhu te danaa ko musal min xazaabil qabri ci buwulub bàmmeel wa xazaabil naari ak buwul sawara wa min al fasaxi ak ca tiit ma al akbari ma gën a rëy wala u na giñ naan yombal alayhi ci moom liqaa yi sama tase mahal lazina bu ànd ak ña nga xam ne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 faatiha ja mat wenn yoon dong rek waat naa ne kooka danaa ko jéggal ak sax ay bakkaaram su bare woon lool ba àgg ci goxi asamaan it te tey dinaa ko ko jéggal lam defoon ci lu baax waat naa ne danaa ko ko nangul duma lakk mukk itam làmmiñ woowee mu waxee bismillaahi rahmaani rahim teg ca faatiha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 wàllu ya ñooñu lay àndal bu dee ci man wa man katabaha ku ko bind muqattaatan ahrufi ngir mooy ay araf wa xamalaha te mu yore ko mel ne mu takk ko maaxoo ànd ak moom kaana kon nekk la di ko ñeel fadlu nga neel xaw ma mun li aji bind bismillahi daggati araf yi nga bind baa mu beru bind siin mu beru bind miim mu beru ñu bañ a taqaloo ba bismillahi ji àgg nga takk ko nag ku ko def day nee yàlla defal la ngëneel lu rëy rëy lu ëppoot wa isa kutibat ndeen bindeef na baa ul basmalati baa nga nekk ca bismillahi rahmaani rahim xaaga ki nii te mooy rek ñu wax baajoor bu dee ñuy ijji jàngal quran ni baab mel ci rabbil alamin rabbi jooju nga xam ne baa bi rek ànd taqaloo tak dara ñu koy tuddee baajoor ku bind loolu nag baa boobu ihda benn waa ashirina ak ñaar fukk marratan ci ay yoon watuliyat te jàngeef alayha ca moom albasmalatu bismillahi rahmani rahim bi niyatin ànd ak yéene saadiqatin ju di aji dëggu mi ata marratin téeméeri yoon wa waddaxaha te mu teg ko fii maalihi ci alalam zaadat kon dolliku barakaatuhu ay barkeem wanama te mu yokku ne baajoor boobu soo ko bindee noonu ba muy ñaar fukki yoon ak benn ba nga ko bindee ba noppi nag nga daal di koy tiim jàng ca bismillahi rahmaani rahim ànd ju sell ba bismillahi rahmaani rahim ja yoon nga fab nag kayit yooyu nga ko bindoon teg ko ci alal joo bëgg rek mu yokku te barkeel alal joo ko teg rek dana daal di yokk yokk te barkeelu barkeel ba kawe sa njort wa ida kutibat ndéem bindeef na arrahmaanu arrahmaan xam si na juróom fukk marratan ci ay yoon wa xamalahaa te yore ko mel ne takk ko kaatibuhaa aji bindam naa la mu am xayran yow kasiiranu di aji bari wa wuqiyata fegaleef ko min kulli makruhin ci lépp lu ñu mu ne baatub arrahmaan rek soo ko bindee juróom fukki yoon daal di koy takk da nga am aw yiw wu baree baree bari yàlla fegal la it lépp lu ñu sib maanaam lépp lu ñu toobuwut yàlla musal la ca wa fii riwaayatin am na ci am nett li mu ne am na mën na ko koo xam ne waa zaba taqoona xalaa qiraatiha ci ak jàngam moom baatub arrahman dubura kulli salaatin ci gannaaw gépp julli alfa marratin junni yoon arbaxata hashara diirub fukk ak ñeent yow man ci ay fan fa innahu naka moom yukaashafu def na ko muril mooy def na ko wan bi xafiyaatil umuuri ci way làquy mbir yi xataa yanzura ba mu xool ilal malaaikati yëm ci malaaka ya ar yay ko ju ruux kullihim képp ci ñoom wa yukallimuhum tamuy wàqante ak ñoom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 baatub arrahman rek di ko sikkar junni yoon saa yoo jullee julli farata ba sëlmal te saaxoo ko ba muy fukki fan ñeent yàlla defal la loolu wa ida katabta ndem bind nga arrahima baatub arrahim mi ni ñaari téeméer watis xatan ak juróom-ñeent watis xiina ak juróom-ñeent fukk marratan ci ay yoon waxal laqta te nga takk dalikal kitaabu moomee mbind fa innahu naka lay bir moo di laa yamalu du mën a jëfati fii ko ci yow asilaaxu ngànnaay wala yaxsulu te du am la ka la min fu ci moom maanaam ci ngànnaay la dara duñ jenn lor wa kullu képp koo xam ne laaqaaka tase naa yow minal aada yi ca noon ya fa innahu naka moom yahrubu dana daw min bayni yadayka ci diggante sa loxo bi idnillahi ci nameelug yàlla taala intahat mat na al xawaasu jagle yi am ci bismillahi rahmaani rahim dafa mujjee baat bi ci mujj arrahim mu ne arrahim day soo ko bindee li mut ñetti téeméer yu manqué benn dal di koy takk kon day dund ngànnaay maanaam amul lenn ngànnaay loo xam ne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 te mu aju ci bismillahi rahmaani rahim takkutu ba a nga bind lil mar'ati ñeel jigéen ja annaashi zati jay jay aji ñàkk dégg ndigal takkutu ba da ja annaashi zati jay aji foñ mel jay aji fay jay aji ñàkk dégg ndigal wal xabdi ak jàmb al aabiqi bay aji daw haadihi l asmaa yi lay tur wa tajxaluhaa ta nga leen di def taxtal firaasi ci ron lal ba fa innahu naka lay mbir moo di yazuulu dana dañ anhuma walis ñoom ñaar daalika loolee waxee ñoom tur yooyu nag haadihi mooy yile ne lii su fekkee dafa dégg di lool sa ndigal wala nga amee ab jaam buy daw ci jamono yi jaam amee da ngay bind li mu tuddi ay tur def ko ca ronlal ga bu dee soxna sa ñàkkoon a dégg sa ndigal la nga daldi di gis mu taxaw temm ci di dégg sa ndigal ngeen daal di amuk déggoo bu dee jamonoy jaam amee sab jaam daw rekk nga def loolu it nga daal gis mu daal toog du dawati da ko tudd ay tur nag waaye nekkul ay baat yu mën a tudd kiy dégg di ko mën a xam faaw da koy xool rek ci téere bi bindi araf yi niñ ko bindi rek waaye nag mbind mi fes na ku yor téere bi su ko bëggee bind dana ko mën a bind wa jurriba nattoof na li kulli dalatin ñeel lépp lu réer al abiqi moo xam day jaam bu daw wa daabati ak daaba wa saxate mu wér yaqool day wax al insaan nit ka ne laa ilaha illa allaahu faahati samaawaatu wal ard laa ilaha illa allaahu bihaa tukshaful baliyaat laa ilaha illa allaahu bihaa turaddu maa daaxat dañoo bind fii nag maa jaa at dafa la sànku dolli ca fallaahu xayrun xifdan wa huwa arxamu raximin allahumma yow buur bi yaa jaami xan naa si yow mi aji dajale nit ña li yow mun fa ab bis laa rey ba bopp déet benn sikki sàkk fii mu nekk ci moom urdut yàlla na nga delloo xale ci man daalati sama loole réer inaka naka yow xadirun aji àttan nga xalaa kulli shay'in ci mépp mbir yaa bu na yi yow sama ndoom inna xaa moom in takku ndem daa nekk mit xaala xabatin di aw fépp min xardalin ci bàkket fa takkun te muy nekk fii saxaratin ci aw doj aw fi samaawaati wala ci asamaan ya aw fil ardi wala ca suuf sa yati kon dikke bihaa ca moom allahu yàlla inna allah naka yàlla latifun aji ñewante la aji sew la xabirun te aji dañ kumpa la wala xawla wala quwata illa billahil aliyil azim mu ne seet nañ ne lii daal soo amee lu réer moo xam jamono yi jaam amee sab jaam daw la wala nga amee daaba ni ki fas wala mbaam wala yooyu dara réer ca dangay wax ñaan ji rekk boo ko waxee rek seet nañ ne faaw yàlla delloo sim la la nga réer la woon loolu nag moo tàmbalee ci laa ilaha illa allahu faahati wal ardu ñëw nag ba ci inna allaha latifun xabirun wala xawla wala quwata illa billahi alil azim moo mel ne ne benn yoon rek lañ koy wax waxuñu da nga koy baamu da nga koy wax rek bàyyi faidatun li njëriñ la oxra beneen li kulli dalatin ñeen lépp lu réer al aabixi moo xam day jaam bu daw wa daabati ak daaba taqaraw da ngay jàng fii tarafi taw ci catul samalaan alfatihata fatiha wa suratal ixlaas ak saarul ixlaas wal mu aw wi datay ni ak ñaari xul avance yi wal kaafiroon ak kaafiroon kullu taalika lépp loolee talaasa marraat ñetti yoon su ma taqaraw topp da nga jàng suurata taariqi marratan wenn yoon wa suurata wadduha ak saaru wadduha talaasa marraat ñetti yoon suma taqaraw topp da nga jàng wa samaai wa taariq suma taaxiru topp danga nga fas ak taw bu malaan ma fa innahu naka lay mbir moo di laa yafuutu bu raw min hu ca moom shay'un dara bi isnillahi ci nameelu yàlla taala kawe na mu ne ba tey lii beneen njariñ la soo amee loo réerale bu dee jamono yooyu mën naa doon ab jaam bu daw bu dee léegi si nag moom mën naa doon daaba mbaa leneen defal lii dangay jël sa malaan wala sa mbubb mi ngay sol seet fa nga xam ni mooy cat la nga jàng fatiha ak qul wallahu ahad ak falaxik naasi ak qul kaafiroon lu ci nekk ñetti yoon jàng nag wa samaay wa taarixi benn yoon jàng wadduha wallayli ida saja yetti yoon dellu jàngaat nag wasamaay wat taariqi daal di koy tifli ca catul malaan ma daal koy fas nag boole ca loolu nee na boo ko defee daal loolee ñu sàccoon dara dara du ca raw léppay dikkaat incha allah wa mimma bokk na ci li nga xam ne jurri ba nattoof na ko dil xab di ñeel jaam ba ëllësi ba nga xam ne yahrubu dana daw awil jaariyati wala jébéer ba isa quri andeem jàngeef na xalaa qitxati laxmin ci morsob yàpp aw labanin mbaa ci am soow wa sharibahoo te naan soow ma alxabdu jaam ba fa innahu naka moom laa yaxrubu du dawati bi idnillahi taala jamono yooyu jaam dafa amoon mu ne nag ku am ab jaam tamuy daw rekk moo xam góor la moo xam jigéen la da wut morsob yàpp mbaa nga wutum soow daal di jàng baat yi tifli ko ca wa tax mu teg ci waxoo moom mooy amana muusa bi rabbihi fahtada wa kafara firawnu bi rabbihi baxawa law anzalna hadha alqur'ana ala jabal ba ca fasaaro yam muy wa huwal azizul hakim loolu di soo ko jàngee tifli ko ci morsub yàpp ba mbaa nga tifli ko ci am soow jox jaam ba daa daw bu dee morsub yàpp baax mu lekk ko bu dee soow maa mu naan ko moo xam jaam góor la moo xam jigéen la jeex na du dawati mukk incha allah faidat li njëriñ la li dawaa ir si ñeel saafara su bopp uktub bindal li ilaafi qurayshin li ilaafi quraysh mahat talaa siimi ànd nga xam ne moom ngay séen maxattalaa siimi waxsil te nga raxase ara sa bi ci moom waxee ñoom nag haasihi moo yilee dafa wax ne lii dañ koy faje boobuy metti da ngay jëkk a bind saaru li ilaa fi quraychin jël nag junj yi nga xam ne moo nekk fii xaw nuru ay araf moom it da tiim téere bi rekk gis ko rëdd ko nañ ko rëdd waaye dafa nekkut ay baat yu ñuy jàng di ko firi mbaa dara waaye daal boo bindee li ilaafi xuraysin da nga ci teg nag junj yi nga xam ne moom lañ bind fii daal di koy jamb nag raxase ko bopp bi ba tey mel na ni mën ngaa jël kër yi itam teg ci sa bopp noonu tàmbalee def ndox di raxas nag loolu day faj mettitu bopp wa mimma bokk na ci la nga xam ne yukkata bu def na ko bind lil maasiyati ñel ak jur ita waqaxa ndeem tàbbi na fiihaa ci ñoom almaradu tawat fa yukkata bu def na bind fii salaasi war a xaatin ci yetti kayit xayyun qayyoomun daa'imun dayyoomun taahirun ashqarun xam buyooshun tamliixun tamliixun wa kalbuhum qitmiirun wa kahfuhum alwaar wa jabaluhum qamqamun qarbuushun tawakkal birtifaahi listimraad ala hada almaali walmaashiyati bihaqi hadihi alasmaa'i fa taxsilu te ngay raxas waaxidatan benn filmaa ci ndox wa tarushu te ngay bi xaa ca moom alxayawaana jurga kullahoo léppam xiina majji yi ci waxtu ak jikkam min marta yi bàyyi ko ci ab farukaayam wa taaneetu ñaareel ba kataalika naka noonee la xiina sabaay ci waxtu suba wa saalisatu ñetteel ba ala faxlil xayawaani ci kuuyal jurga intaha alxayawaan mufrad la di firi aw ndundat waaye boo waxee jurga rek lay gën a neex xam ci kii dégg mu ne ba tey boo amee ak jur ni ki xar mbaa bëy mbaa nag mbaay gëléem nga gis ne jur gi daal tawat da caa tàmbalee dal ñoo ëpp rek di dee kon na jël lii bind ko ci yetti kayit da wut yetti kayit wu ne nga bind ci lii nga xam ne moo tàmbalee ci xayyun qayyoomun ba ci bi xaqi haadihi l asma ndegam kon yetti kayit la wu ci ne bind nga ca loola ngay fab benn ba jamb ko ci ndox maanaam raxas ko ci ndox bàyyi nag ba jur gi fori ba ñëw buñ foree ba jof si ñoom ñëpp nga wis leen ca ndox moomee kon wenn kayit wa dem na bu ca ëllëg saa nag boo xëyee suba bala ñoo xëy di fori nga jëlaat weneen kayit jamb ko ba def saafara ñoom ñëpp jur gépp nga wis leen ca saafara soosee muy ñaari fan ba ko ñetteel nag wenn kayit moo nga jàmb ko waaye bi yoon kuuy la nga xam ne mooy góoral yu jigéen ñi rek kuuyal jur gi rek moom rek ngay wis kayitu ñetteel wi xaw nekk na fii xikamun ay xikam day bëgg a ay baat ay wax yoo xam ne daal benn bu ci ne day ëmb njariñ lu rëy lu mat a xam te jàpp ko alxilmu xam-xam la xoo ñeel na ko xamiisun mbubb wa sirwaalun ak tubéy wa imaamatun ak kaala fa xamiisuhu mbubbam alxayaaw mooy kersa wa sirwaaluhu tubéyam assumtu mooy noppi wa imaamatuhu kaalaam at tawaaduhu mooy toroxlu wal xilmu xam-xam kulluhu léppam maxuudun luñ jàppe la min haadihil kalimaati ci lay asit yi juróom benn te mooy it tabian toppal sunna wala tab tadian te bul topp bidaa it tadix na nga nangoo wàcce sa daraja suufe wala tartafian te bul jéema yëkkatiku tawara na nga sàmm di sori lépp lu lënt wala tattasiyan te bul nangoo yaatal sa bopp ci lu lënt wax bi ci jëkk te am njariñ loolu mooy xam-xam ci boppam dañ ne dafa ame mbubb ame tubéy ame kaala ñu war a fexe ba xam-xam ba ñu bañ koo xañ mbubb moomee ak tubay joojee ak kaala googee mbubbum xam-xam mooy kersa tubayam mooy noppi ci jëpp wax ju amul tuyaaba kaalaam nag mooy nangoo wayaflu nangoo wàcce boppam ñoo bëgg wax ne ku yàlla dénk xam-xam na nga ba amee ti kersa ba ci jëkk mooy na nga rus yàlla sa boroom rus doomi aadama yi ci lépp loo xam ni lu mat rus la ñaareel ba téye sa làmmiñ ci lépp lu amul tuyaaba ñetteel ba nag nangoo lu nangoo wàcce sa bopp mu ne ba tey nee nañu xam-xam daal li muy bari bari génnut juróom-benni baadi yi juróom benni baat yi nag ñaari yu jëkk mooy saxal ci topp sunna te bul jege bidaa ñaari baata nga ko la ca tegu mooy del wàcce sa bopp te bul jéem a yëkkati mukk sa bopp muy ñeent foo toll na sàmm mooy di moytu lépp lu lënt dañoo jëlale lu araam te bul yaatal sa bakkan nag may ko muy dugg ci lu lënt juróom benni baat yooyu nee nañ ëmb na lépp xam-xam daray xam-xam génn ko wa fi sumti nekk na ci noppi sabahu xisaalin juróom-yaari jikko awaluha ay jëkk seen waaye nag xisaal boobu day buñ doon seet la yelloog moom uulaaha lay doon yemu ca tegit mel ne attaani day soppiku attaaniyatu yépp noonu la war a mel fu ci ne am taa waaye nag ñu la ñëwee ci téere bi dañoo bind rek awaluha ak jëkk seen muy ànnastumta naka noppi xibaadatun ak jaamu la min xayri xanaa in ci coono attaani ñaareel bi zinatun waajtaay la min xolli yin ci ay takkaay attaali su ñetteel bi xaybatun ak wegu ak wegeel la min xayri sultaanin ci lu dul ak nguur arraabihu ñeenteel bi xisnun sange la min xayri xaa'isin ci lu aw sàkket wala ab miir bu lay aar alxaamisu juróomeel al istixnaaw mooy doylu anil intidaari walis jekk yi dogal ngànt ila naas jëm ci nit ñi assaadisu juróom benneel bi raaxatul kiraami mooy nooflaayu malaaka yu tedd ya alkaatibiina ñi di way bind jëfi jaam ñi assaabihu juróom-ñaareel bi sitrul xuyoo bi mooy suturaal sikk ya wa fii nag na ci noppi daal xayru duniyaa yiwu àdduna wala aaxirati ak alaaxira mu ne nee nañu noppi day am na juróom-yaari njariñ yu ràññi ko ràññi ba jëkk mooy boo téyee soo làmmiñ rek mel na ne yaa ngi jaamu yàlla te sonnoo ndax yëngaloo benn cër ñaareel bi boo téyee soo làmmiñ day mel ne waañ nga ba jekk donte jekkoo ndax noppi gi ci boppam rek taara la waajtaay la donte sax yorewoo dara lu ñuy waaje bañ naa kee dafa wàcc ñetteel bi noppi day day tax ñu wekk la doonte doo buur amewoo dara lu tax ñu war laa wegit boo noppee rek ñu wekk la ñeenteel bi noppi day aar noppi day aare nga xam ne boo noppee mel na ne jël nga tata joo xam ne kenn mënu koo bëtt wërali sa bopp dara mënta jàll ci loro la juróomeel bi noppi day tax boo wax looy rëccoo ko balu nit ñi naa leen jéggal ma de baal ma de sama làmmiñ moom ma rëcc rek xam naa li ma wax waruma ko woon wax boo téyee sama làmmiñ lu mel noonu la dal juróom benneel ba mooy boo noppee yaa ngi nafal malaaka yi ànd yow di bind say wax ak say jëf boo ne patt rek doo leen sonal yaa ngi leen di nofal juróom-ñaareel bi nag noppi ci boppam day sutura lii wax naa ku wax feeñ waaye ko ne patt rek moom waxoo dara dara bonte amoon nga ay sikk te sax nit du faral di ñàkk ay sikk sikk yooyu day làqu ba yàlla suturaal ko kenn du ko gis kenn du ko xam ci gàttal daal nee na noppi moom ëmb na mboolem yi àddunaak yu alaaxira alaamatul munaafiqiina na way woy yi arbaxatum ñeent la buxdu ahlil xilmi bañ ñooñ xam-xam wa buxdu mujaalasatil xulamaa yi ak bañ toogaaleeg way xam ña wa tarku salaati ak bàyyee julli fil masaajidi ci jàkka ya wa xaala xaalatatu nisaa yi ak jaxasoonteeg jigéen ña mu ne am na yenti màndarga yoo xam ne ci la ñuy xàmmee kunaafiq ba ci jëkk mooy day bañ boroom xamxam yi jëfe seen xam-xam ñaareel ba du nangoo toogaaleeg boroom xam-xam fu mu leen seen te leen di teggi du nangu ñu bokk benn jataay ñetteel ba te nangoo jullee ci jàkka ja bu fekkee du bàyyi julli itam jàkka ja moom du ca dem ñeenteel ba nag mooy di jaxasoonteeg jigéen ñi ab naafiq day bari la jaxasoonteeg jigéen ñi qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ida jaxala ndem def na taariku salaati aji bàyyi julli yaddaxoo loxoom fii taxaamin ci aw ñam yàqu turu dana toq bay na azbaarihi ci diggante ay wexam summun tooge ya joolu loolu day wëndeelu fil xasxati ca bagaan ga muy ca ndab la fa kullu man képp koo xam ne akala lekk na minhu ci moom ixtaraqa lakk xalbuhu xolam wa man ixtaraqa te ku lakk xalbuhu xolam xasaa mu wow wa man xasaa te ku wow xalbuhu xolam fannaaru sawara maskanuhu mooy dëkkuwaayam qaala taala fa waylun toskare lil qaasiyati ñeel na way wow ña ñeel na way wow ña qulubuhum seeni xol al aayata mottali laaya ja man yonent bi nee na ngeen di moytoo bokk ak kuri julli di lekk ci leen ndab ndax mu ne kuy bàyyi julli te di ko tey boo bokkee moom ndab itam day mel ne tooke mooy bàyyikoo ci diggante ay weexam maanaam wey nekk ci ay baaraamam tooke moo cay bàyyikoo daj mboolem ndab la ngeen tiim di ca lekk nga xam ne ku lekk ci ñam woowee rek xolam daal lakk ba ñuul te xol bu lakkee day wow maanaam du am yërmande buñ ko waaree du waaru du bëggati lu baax te xol mel noonu bu ko yàlla dabaatalul ci yërmandeem sawara lay jëm ndax su borom nee na fa waylun lil qaasiyati qulubuhum min dikrillah qaala alayhi salaam ida dëgmal na taariku salaati aji bàyyi julli xalaa taxaamin ci aw ñam irtaxada lox ak taxaamu ñam wa fa yaqul te muy wax allahumma yow buur bi insha yàlla na nga nocci min nii ci man albarakata barke mu ne yonante bi nee na woon kuy bàyyi jullit di ko tey bu jëmee ci aw ñam bëgg caa lekk ñam wa day lox daldi ne saa boroom barke bi nga defoon ci man dindi ko ndax kee di bañ a julli du fekk ci man barke bu ma lekkee itam du ci am barke waruwee nettaleef na an hujjale ci yonante bi alayhi salaam man sama ku muuñ fi wàcc yi taariki salaati ci kanamuk aji bàyyi julli fakk annama hadama daanaka daa mel ni ku màbbu arkaanul kaabati ponki kaaba ga wa man naka xa ku takk binta taariki salaati doom bu jigéeni aji bàyyi julli xataxa kon dagg na maa la nga xam ne bay na foo nekk na digganteem wa baynallaahi ak diggante yàlla man yonante bi nee na woon ku gis kuy bañ julli te di ko tey waru ko won kanam gu leer di muuñ bu ko defee day mel ne ku waaxoon ba ci kaabak yàlla ga nga toj ko màbb ko mu daanu ba tey mu ne ku fekk kuy bàyyi julli te di ko tey mu takk doomam def ko soxna kon na xam ne digganteem ak yàlla dara toxatu fa wàcc na yàlla yàlla wàcc ko dem na wan gannaaw yàlla yàlla it wan ko gannaaw wa min ahsani baadil wasaaya bokk na ci gën jaa rafeti leen ni ndénkaane ya wasab àndaaleel ak alxaq yàlla subhanahu sorelal naa ko lépp li yellu ci moom bil ixlaasi ca sellal ga fii ubudiyyati yi ci ak njaamoom maanaam ci ak nekk di ab jaamam war rida ak gërëm ga an walis yàlla fii ahkaamihi ay atteem wa husnil adabi ak rafetu teggiin maa xaw ànd ak moom bi an laa tataxarraka ci mu bañ a yëngatu jaarihatun benn cër min jawaarixika ci say cër fii xayri ridaahu ci lu dul ngërëmam fa adabul lisaani teggeenu làmmiñ allah yazaala mooy mbañ a dañ aju tooy bi dikkri laaj tudd yàlla abadan faaw wa bi dikkri ixwaani ak tudd bokk ya bil xayri ci aw yiw wa duxaay ak ñaan nga lahum ñeel leen wa badlin nasihati ak joxe ak laabire wal waazi ak waare maxal imsaaki ànd ak jàpp maanaam ànd ak bàyyi an muwaajahatihim walis jàkkaarloog ñoom bi maa ci dara loo xam ne yakrahuuna danañu ko sib wala taxatab te bul jëw kenn wala tanimma te bul rambaaj wala tashtim te bul ŋàññi kenn wala te bul xuus fi maa ci loo xam ne laa ya'nika du la jëriñ daa ci di baat yu am njëriñ yi yomba jàpp di ko jariñoo mu ne nee nañu dénkaane yi ngay bëgg a dégg day bokk na ci dénkaane yi gën a rafet te mata jàpp la ci jëkk mooy dagam yàlla mën laa tàggoog moom àndal ak moom ci sellal na nga koy jaamoo xam ne moo la bind moom nga fexe ba doon jaamam buy sellal lépp lu bëgg rekk nga nekk ca te jëmam rekk tax boole ca it lépp lu mu àtte soxol sedd ca lu mu dogal rek loola neex la boole ca nag foo toll di sàmm teggiin sa digganteeg moom te loolu mooy foo toll bàyyi ko xel ba say cër doo ci bàyyi benn rëcc di def lu bëggut moom yàlla bu dee saw làmmiñ te cër yi moo ci gën a doy waar fexeel ba foo toll di tudd yàlla ci saw làmmiñ ak di tudd say mbokki jullit di wax ci ñoom lu baax di leen ñaanal koo ci gis laabire ko wax ko la koy tax a jariñu moytuloo ko la koy tax a loru di leen waar ci wàllu yàlla fexe nag ba lu yàgg-yàgg saw làmmiñ doo ci wax kenn lu ko naqare lu yàgg-yàgg bul jëw kenn bu rambaaj mukk-mukk bu ŋàññ kenn bul di wax sax ci saw làmmiñ loo xam ne saw yoon nekku ca amalu la benn njariñ xii la waxees na ne xalaqa bind na allahu yàlla al lisaana làmmiñ tarjumaanal xal bi muy làpp xol maanaam muy interprété xol wa miftaaxal xayri tey caabi yiw wa shari ak ay waxi la waxees na ne sax isa talabta ndem sàkku nga salaaxa qalbika yëwénug sa xol fastain na nga dimbanikoo àllahi ci moom bi xifzi lisaanika ci wattu saw làmmiñ wal tasim te nga taqoo asumta noppi fa innahu naka moom sitrun sutura la lil jaahi li ñeel aji wa zeynun ab taar la lil aaqili ñeel aji xellu dañ jàll ba tey ci tegg ñu nga war sàmm ci saw làmmiñ mu ne nee nañ yàlla dafa sàkk làmmiñ def ko muy interpréter xol maanaam la nekk ci xol bi làmmiñ yi moo koy wax bañ xam ne kooku lii la fas kooku lii moo nekk ci xolam yàlla it moo def làmmiñ muy caabi yiw di caabi ay mooy làmmiñ mën nga cee wax lu la jariñ waaye mën nga caa wax lu la lor faw mu ne nee nañ soo bëggee sa xol defaru say ba wute ko ci sàmm saw làmmiñ boo téye saw làmmiñ rek sa xol daal di defaru fexeel kon bay taxoo noppi rek ndax bu fekkee xamoo noppi ba nga noppi doon sa sutura kenn du la xamal dara su fekkee ngay ku xellu ku xama xamit noppi ga di sa taar bu ñëpp ràññee wa adabu samhi teggiini nopp an la tastamiha mooy nga bañ a déglu ilal fuhshi jëm ci aw ñaawteef wal xanaa aku ñaawteef ñoo bokk wal xiibati ak jëw wal namimati ak rambaaj ba li fi nekk istami déglul ila zikri jëm ci tudd yàlla wal waazi ak waare wal xikmati ak xikma wa maag la nga xam ne yaamoodu dana dellu ilayki jëm ci yow bi faidatin ci njariñ uxrawi fastami déglul ila zikri jëm ci tudd yàlla wal waazi ak waare wal xikmati ak xikma wamaag la nga xam ne yaamoodu dana dellu ilayki jëm ci yow bi faidatin ci njëriñ uxrawiyatin buy ko jug àllaaxira wa dunyawiyatin ak buy ko jug àdduna wa ahsin nga rafetal al israa déglu ga ilaa mukallimika jëm ci aj waxanteeg yow wa muxaatibika ak aji wàqante yow ñoo bokk mutalazizan mbir mu ngay aji bànneexoo bi zalika ci loolee dafa jàll ci teggiini nopp mu ne sa nopp da koy sàmm ba loo ci déglu lu aay mel na jëw mbaara mbaaj mbaa kuy waxu ñaawteef dara lu ay daal bul ko déglu ci say nopp fexeel bay déglu tudd yàlla ak waareeg xam-xam bu am njëriñ ak lépp loo xam ne rek da ci jëriñu fii ci àdduna mbaa foofee ci àllaaxira wala ci yaar yëpp su amee koy wàqanteel itam na ko déglu bu baax mel ni sax yow déglu mu lay wax moo la gënal moo déglu ngay wax ba adabul basari teggi ni gis maanaam teggi ni bët antaxut dafoo mooy nga damm ko xandil maxaari mi walis yi mu araamal waxan xoyoobil ixwaani ak walis sikki mbokk ya waxanil munkaraati ak walis yañu sib mooy mbooj wal muharramaati ak yañ araamal dafa mel ne wal muharramaati ji ak lu mu njëkkan wax ne an taxuddahu anil maxaarimi soriwuñu fa inna allah naka yàlla taxala yaalamu dana xam xaa inatal ayuni way wari bët ya bët yi waru mooy bët yi sàcc di xool lu ñu xool mel ni ku xamul ne yàlla moom xam na wa maag la nga xam ne tux fii dana ko làq as suduru dënn ya muy xol ya gannaaw ba mu nag làmmiñ mu jàll si ci bët bët moom itam lu mat a sàmm la mu ne teggi ni bët mooy ngay téye say bët di ci moytoo xool loo warta xool moo xam lu araam la moo xam lu ñu sib la di moytu itam xool sikki say mbokk maanaam sa mbokk jullit mu ne bul jéem xam dara ci sikkam bu say bët tegoo ci sikkus mbokkum jullit na nga daal di gaaw teggi say bët te pinati moytu caa xalaat mbaa wax lu ca jëm ndax yàlla kat kuy xoole ku ne xam na la tax ngay xool lu waay ëmb ci xolom it xam na ko te kenn ku ne dana mës a wéete yow fay la say jëf waqiila waxees na ne man taabaxa ku toftale tarfaxoo ab jisam taabaxa toftaloo xatfuhoo deexam nga wa man xabda ku damm tarfaxoo jisam ba tamma kon mat barfuhu ak ñawam wa man kasurat ku bari laxazaatuhu ay gendikoom daa mat sax xasaraatuhu ay réccoom wala yakun na nekk nazaruka sa xool bil itibaari ci ak xalam mi waaru wal istidlaali ak sàkkoo tegtalu ala qudratillaahi ci kàttanu yàlla taala wa azamatihi akuk màggam wa jamili sulxihi ak aj rafeti jëfam aariyan te aj rafle xan xububi nafsi wëlis cëri bakkan cëri bakkan mooy wàlli bakkan wa shahawaatiha ak i bànneexam mu ne nee nañu kuy xool la neex rek di wéy dangaa repp koo xam ne du téye ay bëtam mukk fu mu toll di xool rekk lu ko neex du jóg mukk ci réccu ku saxoo téye ay bëtam nag di moytoo xool lu wërta xool xamal ni ku yewwoo ngoog te dana am payub loolee mu def di sàmm ay bëtam baña xool lu mu wërta xool mu nekkoon nañu jéem lépp lay xool ci a xame kàttanu yàlla gi ak màggam gi ak rafetu jëfam ji di ca waaroo ka ku gëm waaye bul xool rek xoolu kese boo xam ne àndut ak xalaat àndut ak dara lu may càggante rekk ci xel ba booy xool daal bul xool rek ngir sa wàllu bakkan ak sa bànneex mooy loolu daa neex ci yow rek nga am bànneex ca xool nga tax rek nga di ko xool loolu moytu ko wa adabul qalbi te gi ni xol an turaax ya mooy nga sàmmonteeg al axwaala mbir ya as saniyata yi aji yëkkatiku al mahmudata e sant watan fiya te ngay dàq al xawaatira xalaat ya al radiyata yi aji bon mooy aji yamaay al madmumata yi di ŋàññ wa tatafakkara te ngay xalaat fii alaaillahi ci xéewali yàlla yi wa naamaahi ak xéewalam wa xajaa'ibi xalqihi ak kiimtaani mbindeefam yi fa fil hadis nekk na ci hadis tafakkuru saahatin xalaat wenn waxtu xayrun moo gën min ibadati sanatin ci jaamu at wa fil xikam yi nekk na ci xikam yi maana faxa jëriñut alqalba xol ba shay'un dara mislu xalwatin kem ak wéet yadd xulu kook dana tàbbee bi xaa ca moom may daana fikratin yoonu xalaat may daan wala mii daan yépp daañu ko wax di ko wax am lef muy bulwaar mu yoon wu yaatoo yaatu dafa jàll si ci xol xol moom nee na lu mat a sàmm la ngay fexe ba di moytoo xalaat benn xalaat bu ñaaw fexe rek di xalaat ci xéewal yàlla yëm la xéewal ndax nga dolli ko sant di xalaat ci li mu sàkk te lépp di lu yéeme yéeme fexe daal ba sa di xalaat mbir yu kawe ya yee ñu sant yay tax am ngërëm te moytoo xalaat ci mbir yu ñàkk solo yi nga xam ne day tax a jëm suuf rekk mu ne addis ba nee na wenn waxtu rekk nga di ci xalaat lu jëm ci màggug sa boroom ak lu tax nga mën a moom moo gën ci yow jaamu diiru at moo xam ne cëri rek moo yëngatu waaye xol ba xalaatut mu ne ñi wax wax yu am njariñ nee nañu ñéet xalaat lu am njariñ daal ni mën a jariñu xool amul leneen lu ni mën a xol wa min bi bokk na ci ay tegginam an tuxsina nga rafetal ab azanna njortu la billaahi ci yàlla taxalaa kawe na wa bi jamihil muslimina ak ci mboolem julit ña wa tutahirahu wa te koy laabal minal xëlli ci ak mbañeel wal xishi ak wor wal xasadi ak kañaan wal xiyaanati ak wor ba tey wa soo il xaqiidati ak ñaawu pas-pas fa innaha naka yooyu min xiyaanatul xalbi mi ngi bokk ci waru xol qaala allahu taala inna samha naka dégg ba wal basara ak gis ba wal fuaad ak xol ba kullu ulaayika leen lu ne ci yooyee kaana nekk na masolan di lu laaj an fa walis ko mu ne bokk na ci teggi ni xol yi nga war a sàmmonteel ngay rafet njort ci yàlla sa boroom di rafet njort ci mboolem jullit ñi fexe ba jullit ñi doo ci ëmbal kenn luy nuru ak mbañeel wala alxichu alxichu mooy ñàkk laa biire kenn xam loo xam ne daal mën na koo lor moom sa mbokkum jullit mi nga nëbb ko bañ ko ko wax moo xam day lu aju ci addunaam mbaa lu aju ci diineem ñoo ci yemoo da ngay mbokkum jullit mu ne nga di ko laabiire bañ koo nëbb loo xam ne lu koy yàqal la te mën nga ko ko wax mu moytu ko bañ koo nëbb it lu koy jëriñ te mën nga ko wax mu jëriñoo ko kenn ku ne it la ko yàlla defal danga ko koy yéene ba yéene ko lu ko ëpp fexeel tam ba rafetal sa pas-pas bañ fas dara loo xam ne dëppawut ak pas-pasu da bi jàppoon mook ay saxaabaam ndax ñaaw pas-pas moom daa bokk ci woori xol maanaam xol bu ñàkk matal wala daal day ñaaw pas-pas mu ne suñ boroom nee na kenn ku ne nay sàmm ab noppam ak bëtam ak xolam ndax kat leen lu ci ne bu ëllëgee des na ko laaj ndax sàmm na leen def ca la ca war moytu ca la musañut am déet kon na moytu dégg naa te déggut baa gis naa te gisut baa xam naa te xamut mbaa lu koy nuru lépp loo xam ne yoonam nekku ca na koy moytoo jéem a xam mbaa di ca xalaat mbaa di ko déglu mbaa di ko xool day jéem daal di xalaat ci xolam di xool ci ay bëtam di déglu ci noppam yu ko wóor ne lu yàlla gërëm la te bu ëllëgee dina ko ca fay ngërëmoo tuyaabaam qaala rasulu sallallahu alayhi wa sallam alaa yëgal inna nekk na ci yaram wa mudghatan aw dog ida saluhat woo xam ne ndeem maanaam defaru na saluha maanaam defaru aljasadu yaram wa aljasadu kulluhu léppam wa fasadat ndeem yàqu na fasada yàqu aljasadu yaram wa kulluhu léppam alaa yëgal waxiya moom alqalbu mooy xol ni addis ba nee na doomi aadama am na dogu yàpp maanaam suux woo xam ne moo nekk ci moom woo xam ne su defaroo rek léppam defaru bu yàqoo léppam yàqu bu daldi ne mooy xol xol rek mooy nit bu xol bi defaroo lépp defaru bu xol bi yàqoo nag lépp yàqu waqaal wax na baadu akaabiri salafi lenn ci ñu gën a magi ci ña jiitu akaabir ci jublu ñu gën a màgg jubluwuñ ci at rek maanaam ña jiitu woon ci gëna a baax alquluubu xol ya talaatatun ñett lañu qalbun xol kal jabali wu mel ni aw doj laa yuxarrikuhu du ko yëngal shay'un dara wa qalbun ak xol kan naxlati bu mel ni tàndarma asluha cosaanam saabitun aji saxla wa farxuha te bangaasam fi samaay nekk na ci asamaan wa riixu ngelaw la tamiilu dana jeng biha ak moom yaminan ci ab ndeyjoor wa shimal ak ci ab càmmooñ wa qalbun akub xol kar rushati bu mel ni aw yansabu dana dem maxa kulli rihin ànd ak wépp ngelaw wala yasbutu te du sax xanaa shay'in ci dara ñu fi jiitu woon tey ñu baax a baax am na ci ku waxoon ne xol yi ñett lañu xol boo xam ne dafa dëgër dëgër ba mel ne awdot dara mënu ko yëngal xol boobu nag kon bu fekkee lam dëgëre gëm laa bëgg yàlla kon moo gën ci xol yi ndax dara du ko yëngal xool ba ca topp day mel ne tendrement taat wi day samp bi suuf te dëgër bangaas yëkkati bu ba ca kaw bangaas yooyu nag ngelaw li mën naa ñëw yëngal ko jaayoog moom jëm day joor ak càmmooñ waaye du tax nag taatu garab ga moom jóg fa mu nekkoon bu ko mën di yëngalit dañ ko yëngal rek ba mu yëngatu nga bàyyi ko dem waaye doo ko toxale fa mu nekk ba kon xol bu mel noonu bu fekkee ci gëm la nekk ak lu baax ba kon bee wees da koo gën rek waaye bu ràññiku la xol bi ci des nag mooy booyof ni aw dongo nga xam ne lu ngelawu ñàkk ñàkk solo bu dikkee ëf ko yóbbaale te ngelaw yi dañuy wuutee ka juyeloo moom nag ngelaw yi ñëw rek ëf ko yóbbu fële bu leneen ñëwee ëfaat ko am na xol mel noonu nga xam ne du sax ci dara tey mel ni kon boroom xol boobu moom njariñ dana ko jafe ndax lay tax a jariñ mooy sax ci lu baax te bàyyi wa adabul yadayni teggi ni yaari loxo ya bu an tabsutahuma mooy nga tàll leen lil birri jëm ci njekk wal ihsaani ak rafetal wa xidmatil ixwaani ak liggéeyal mbokk ya wa an laa tastaxina ak nga bañ a dimbandikoo bihimaa ci ñoom ñaar alal xataaya ci ñaawteef ya wal xisiyaani akuk mooy dafa jàll si ci yaari loxo yi mu ne loxo yi de moom dangay fexe ba di ci def lu baax rek te yàlla tax loo mën a defal mbokk yi ci lu baax ak loolu mën a liggéeyal te yàlla tax def ko nga moytu nag yàlla xéewali la ñaari loxo yi nga di ca def aw ñaawteef di ko ca moy loolu moom ñàkk sant la te ba àggee ci fay ga rek xam ne ëppoon naa def wa adabu rijlayni teggiinu ñaari tànk ña antasha mooy nga dox bihimaa ci ñoom ñaar fii salaahi nafsika ci yoonuk sa bopp maanaam defaruk sa bopp wa ixwaanika ak say mbokk wala tamshi bul dox fil ardi ci suuf marahan ngir ngay aji sigré maanaam di wanoo ko maaree ko puuk réew mara xan daañu maanaam ismu faahil mari xan wala xtiyaalan du caagéenu puuk réewu wala zahwan du caagéenu réewlu fa innahu naka loolu mimma bokk na ci la nga xam ni yóbbu xibbuhu dana ko bañ allahu yàlla taxalaa kawe na wala tastain bul dimbandikoo bihima ci ñaari tànk ya ala maasiyatin ci ak mooy wala radilatin du caageenu caay caay tànk yi la yàlla xéewle na nga sant yàlla ba bu jógee dem rek ci li yàlla gërëm nga jëm waaye loo xam ne xeetu mooy la mbaa caay caay la ak lépp daal lu yàlla gërëmul moom bu dox mukk jëm ca boo naree jëm ci ak mooy rek toogal teel dem jàkka ak tool ak luy defar sa mbiri bopp ak luy defar mbiri say mbokki jullit ak lépp lu am tuyaaba na nga moytoo dox nag di puuk di wane sa bopp ak réelu loolu suñu borom da koo bañ lool boo wax ni wala si fil ardi marahan innaka lan taxriqa al arda wa lan tabluga al jibaala tuula su boroom daal dafa bañ doxinu pokkuré woowu wasiyatun li ab dénkaane la aw saabab dénkoon na bihaa ci moom Ali ibn Abi Taalibin karamallahu wajha wala dafa doomam ja alxasana te mooy alxasan radiallahu anhuma xaala mu waxoon loxoo ñeel ko ne ko yaa bu na yi yow sama ndoom uusika dinaa la dénk bi taqwallahi ci ragal yàlla taxalaa kawe na fil xinaa ci am koom wal faqri ak ñàkk wal xadri ak maandu fi sadiqi ci xarit wal xadri ak noon wal xamali ak jëf fi nashaati ci cawarte wal kasali ak tayeen war ridaa ak gërëm anillaahi walis yàlla xazza te dana wa mu màgg fi shiddati ci tartar wa raxaayi yolamuk dund mooy neexuk dund yaa bu nayi yow sama ndoom maa charun ay ba adoxoo nekk na ci gannaawam aljannatu ajjana bi charin mu di aw ay yiw ba adoxoo nekk na ci gannaawam annaaru sawara bi xayrin mu di aw yiw wakkulu naimin te gépp xéewal dunul jannati budul ajjana zailun aji dañ la jëlalun lu tuutee tuuti la wa kullu balaayin te bépp balaa duna naari boobu nekk ni di yées sawara fa huwa moom maxquur lu ñu xeeb la mustarzalun te lu ñu suufeel la maanaam ba tey lu ñu wayefal la moog lu ñu xeeb la ñoo bokk al imaamu xali dénkoon na doom ji xasan ne ko sama doom maa ngi lay dénk nga ragal yàlla ci boo amee ak boo ñàkkee taqoo maandu koo jëflanteel muy sa xarit muy sa noon na nga jëflanteeg moom ci maandu di jéem jëf kem sa kàttan boo saw rek boo taayeelee teel def la nga man te bu toog maa ngi lay digal it foo toll di gërëm yàlla bañ koo xarab moo xam na ngaa tollu ci tiis tiis am na ngaa tollu ci ak jàpp ndeeg xéewal foo toll rek lam dogal ci yow gërëm ko xamal ni nag lu ñu ñëw ay la waaye àjjanaa cay topp kon nekkatul ay ndax lu lay tax a dem àjjana rek du ayati waaye nag lu ñu ne aw yiw la waaye sawaraa cay topp xamal ne du yiw aw ay la kay loo xam ne da yóbbu sawara rek du aw yiw xéewal xamal ne lu mu murmuru xéewal te duggal ko àjjana rek du dara mëtta faale buñ la gàllankoor ba doxoo jëm ci sa boroom ndax xéwal googi lu gàtt gannaaw lay doon bala yàgg rek mel ne mosu faa dox am natt bu la yàlla teg lu mu réy réy del ñaan rek mu musal la ci sawara dee dem sawara rek moo metti waaye lu bokk tëg loolu rek mënees na koo muñ te ku ko muñ ngir yàlla yàlla gërëm la fay la ca tuyaaba ju apoot yaa bu na yi yow sama ndoom yaalam xamal ne annahu naka ne mbir moo di man absara ku xool maanaam ku gis xayba nafsihi sikki boppam saxalahoo mu soxlaal ko xan xuyubi gayrihi wali sikki udul moom al imaamu ali moo jàll ci dénkaane bi muy dénk doom ji alxasan ne ko fexeel ba di gis sa sikki bopp te bañ a gis sikki jàmbur ndax ku xam sa bopp xam la nga amee ci sikk rek mu doy lu sëkk ba doota la geestu sikki jàmbur wa man radiya ku gërëm bi qismatillaahi ci cër bi yàlla taala lam yaxzan du jàq du metitlu xalaamaa ci la nga xam ne faatahu raw na ko mu nekk ko ku xam ne yàlla moom mooy séddale mu xam ne it la ko yàlla sedd ci coobareem la ko defee kenn mënu ci dara ku xam loolu te nattabliwu ko rek lu ko raw it du ko mettitlu du ko naqaru day xam ne yàllaa ko ko cëralewutoon rek ne ba doon ab cëram moom mu jot ca wa man sàll ku bocci sayfal bax yi jees yi mbewte kuti la kon reyeef ko bi ci moom mu ne ko nag ku bocci jees yi mbewte daañu foqar ci jeesi ja raye ko ca moom ci boppam te du ca mën dara wa man xafara ku gas li ax yi ñeel mbokkam bi iran ab teen waqax mu daanu fiihaa ci moom wa man xatak ku xotti xijaaba ax yi kiiraayal mbokkam in kashafa muriku xawratuhu awraam wa man nasiya ku fàtte xati atahu aw ñaawteefam istaazama mu réewlu xati ata xayrihi ñaawteefu kudul moom mu ne ko ku gasal mbokkam ak teen bëgg mu daanu ca moom ci boppam moo cee daanu mbokk mu du ca daanu mooy li ñu wax naa ku yéenew ay ci boppam lay dellu kuy xotti sutura si mbokkam faaw rek yàlla xotti suturaam mu ne ko kuy fàtte ñaawteefu boppam daldi tàmbalee gis ne ñeneen ñi dañoo amee ñaawteef yu mag a mag te moom amewut ñaawteef te fekk na kenn ku ne ñaawteefu boppam moo koy lor waaye ñaawteefu keneen moom lu mu mën na koo bañ a wàññi dara wa man kaa bada ku jànkoonteeg al umura mbir yi xatiba mu alku wa man xaala ba ku notanteeg alqadara dogal ba xuli ba noteef ko wa man iqtaxama ku sotoxlu albaxra géej ga xariqa kon mu lab ne ko yàlla tey dogal ay mbir yoo xam ne ab jaam mënu ci dara mbir yëpp sax lu ci nekk ab dogal la waaye jaam bi yàlla moom day seet la yàlla dogal bu ca mënee sabablu ci anam goo xam ne yàlla du ko ca mere mu daal cee jéem sabablu te bàyyi ak yàlla xam ne yàlla moo amee pexe moo amee kàttan waman ujiba koo xam ne yéemu loof na ko bira yi ci xalaatam balla mu réer wa man istaxna ku doylu bi xaqlihi ci xelam zalla mu tarxiis mu ne ko ku naw xalaatu boppam soo tuut sànku te du ko yëg ku doyloo xelum boppam soo tuut tarxiis daanu te du ko yëg lu waaye am am xalaat ak lu mu am am xel ne diisoonteeg waroom xel yi ca des ak waroom xalaat yee ca des wa man takabbara kuréelu xalan naas ci nit ñi mun la kon yokkateef ko wa man safiha ku desee di alayhim ci seen kaw sutima kon ŋàññeef ko wa man daxala ku dugg madaaxila suu'i bunti mbon uttulima tuumaaleef ko mu ne ko kuy réelu di wan nit ñi na mu toll daldi di soof nit ñi nit ñi duñ ko bëgg a tegati bët ku jëli nit ñi ak ndof di dal ci seen kaw benn ku mel ne moom dal ci kawam fay ko jëfam ju bon fay di ko xasaka sikkal mooy ku gàttum xel di dal ci kaw nit ñi daal mais séentu ku mel ne moom dal ci kawam def ko lu toll ne la mu ko def mbaalu ko ëpp bu dee nitu kese ku mënta fayu nag ŋàññi ko di ko teg baat yu ñaaw ñaaw la koy fayee mu ne ko itam boo bëggee ñu bañ laa tuumaal da sori bunti tuuma yi waaye am na bunti mbon yoo xam ne ku fa dugg faaw ñu tuumaal la wa man xaalata ku jaxasoon teeg al ardaala way suufee xuqira kon xeebeef ko wa man jaala sa ku toogaaleeg al xulama way xam ne wuqira kon fonkeef ko ne ko boo bëggee ñu fonk la weg la da ngay toogaaleeg ña xam tey jëfe la xam waaye booy jaxasoog ñu ñàkk ñu solo faaw ñu xeeb la dal la yemaleeg ñu ñàkk solo ñooñee ku kaf ustu xif fa kon waaye fa leef bi ci moom mu ne ko kaf ëpp naa baril dee ko def lu yem tey kaf ak ku yeewu ku am xel waaye kuy kaf ak ku mbaa mu di ko baril ba mu ëpp mën na caa jële toroxte wa man akthara ku bari min shay'in ci dara xurifa xameef ko bi ci ci moom mu ko nit ku ne la muy bari la waxe mbaam di ko bari la jëfe loolu lañ koy bàkke loola lañ koy xame yàlla nay lu baax wa man kasura ku bari la xatuhoo coowam kasura kon bari saqatuhoo rot itam maanaam mooy waxam ya bari sikk wa katura ku bari saqatuhu rot itam xàll néew xayauhu kersaam wa man xàll ku néew xayauhu kersaam xàll ku néew warauhu sàmmam nga warauhu wa man xàll ku néew warauhu sàmmam nga maata dee qalbuhu xolam wa maata te dee qalbuhu xolam daxala mu dugg annaara sawara mu ne ko bala ngaa wax del xam la ngay wax tey néewul say wax waaye ku bari coow moom ku bari coow faw mu bari ay wax yu juunoo juunu yu sikk-sikk te ku bari wax yu mel noonu daldi néew kersa te ku néew kersa daldi néew ak sàmm te ku néew ak sàmm xolam daldi dee te ku xolam dee mu dem sawara bu ko yàlla dabaatalut ci yermandeem yaa bu na yi yow samas ndoom man tafattana ku xellu i'tabara mu xalam te waaru wa man i'tabara ku xalam ba waaru i'tasala mu beru wa man i'tasala ku beru salima mu mucc wa man taraka ku bàyyi achahawaati bànneex ya kaana mu nekk xorran di gor mu ne ko ku yeewu faaw nga xalaat te waaru te ku xalaat ba waaru faaw mu beru